Salam alaikum, samaya ngi mangi tey ci international portugais muy kan Cristiano Ronaldo mu nekk grand jour mais mu nekk star moom Cristiano Ronaldo gis nañu avant muy quitté di dem Arabie Saoudi mu ne mu ngi Manchester United yi mu dem ba Manchester United ñi libéré ko maanaam ñi bàyyi ko moom Cristiano Ronaldo mu nekkoon ci ay jafe-jafe mais aussi mu nekkoon ci problème mais alhamdulilah léegi moom Cristiano Ronaldo mu ngi retrouvé boppam ndànk-ndànk ci championnat Arabie Saoudi mu dugal quatre bi moom Cristiano Ronaldo mu nekk ndaanaan quatre bis à zéro lañ dóor kan moo dugal kat bi yëpp moom Cristiano Ronaldo mu dugal kat bi mu nekk lu baax si moom dina wane ne moom mu ngi ñëwaat ci forme aussi dina wane ni que moom pare na moom Cristiano Ronaldo pour mu gën a lancer carrière am moom Cristiano Ronaldo tey tamit wane na ko mu dugal kat bi dina gën a permettre moom mu gën a nekk à l'aise ba pare mu gañaat confiance foofu ci Arabie Saoudi moom lañ leen indiloon tey ci kër Cristiano Ronaldo dugal na kat bi mu nekk lu baax moom man laal si ni yàlla mu ta ba yeneen vidéo